moom man nag nit laa boo xam su may wax ñëpp laay waxal te comme ni ma leen di wax chaque instant mooy li ma leen ma leen réer tribunal moo arrêté moo tax yu bëri am mais man lépp lu ma bëggoon wax bëggoon ko wax président bëggoon la ko wax yow bëggoon ko wax keneen ci réer tribunal laa la koy jaarale wax la ko nga dégg mhm. ko donc mais comme arrêté bu nekk mu nit boo xam damay kaas di kaas di kaas di kaas non non mhm. mais artistes yi war nañu fulla bu toll ni mhm. def benn collectif bu dëgër këj dem moo tax faye guñ bu fekkee ci gouvernement bi ñu jàkkaarloog gouvernement bi laaj leen la moo tax artiste comédien bi ay œuvre am di jaar fii ak fii ak fii te kenn fay ne temps Covid ngeen ñoo am ay 10 000 lañ leen sànni ñuy <laughs> 5000. ñu ko beñe mu jeex. Ah, <laughs> am na ñu am million sax. gis naa ku mooy li ma la xam nga tey fekkoon danoo jox ñëpp. ñu jox ma man. Mm-hmm. damay am ngoru war a am dama lay jox 100000. dëgg la mais am leen jox artiste war a am 100000. jox ko 10 000 yooyu yëpp ngi ci biir. looloo ngi ci biir. waaw mais man nag am naa fulla bu toll nii boo ma war a jox 100000 moom dama ma ko jox par force moom waaw parce que la. alors waaw ma naanaan. suñu nee xaaral ma naan waa naanaan baa li ngay naan neex na ne ananas la ma jox. Hmm. Hmm. <laughs> ok yaakaar dama manqué vitamine. alors da nga manqué vitamine. xam naa loolu la gel bi xam. <laughs>